Euh, donc nañ ko bàyyi mu wax ñu ci wàllum réforme de la justice euh, ñu wax ñu tey euh, nan la ñuy taxawee ñoom en tant que des professeurs ci mbir mi professeur yaa ngi en direct sur Sénégo ñu ngi nga wax ñu tey sa teewaay fii lan moo ko wundu ak lan la ñu mën a xaar tey ci mbir mi tey gi am fii. waaw jàpp naa tey bis bu mag la ndax dañu. Euh, waxtaan ci loo xam ne dafa am solo lool ci réew mi mooy justice ndax xam nañ ne société li ko lal li cëslaayam bi njëkk mooy justice bi nga xamante ne mooy aar suñu nekkin wante justice boobu tamit ci ni muy doxee ci ay doxalinam war nañ ko saytu fexe ba nga xamante ne dana dëppoo dana sàmmoonte ak àq ak yelleefu doomu aadama yi ba nga xamante ne itamit euh, askan wi nga xamante ne ci turam la ñu euh, rendre la justice mën a euh, jàpp ne justice boobu moom la fi nekkal wante nekkul di salfaañi ay àqam ak ay yelleefam wala di jogati li nga xamante ne mooy Euh, droit euh, yi nga xam ne moom la ñu reconnaître bépp citoyen loolu nag lu am solo la mais niñ ko euh, gisee fii tey nekkul ne dañu bëgg a def de l'inquisition maanaam joxoñ ay nit ay baaraamu tuuma ne ñii lañu ñu war a dal seen kaw mais dañu jàpp rek ne euh, justice bi am na ay jafe-jafe rëq-rëq yi nga xam ne moom la ñu dund ci wàllu justice ñu fexe boo xam euh, yan rëq-rëq la yan jafe-jafe la ba noppi fexe ba andi ci ay saafara loolu moo wundu euh, daje bi tey. boo gisee professeur c'est pas la première fois tey ñu woote lu mel ni waxtaan yu mel ni dialogue bu mel nii. ba sànq boo xoolee ci discours président wax na sax ba tudd rapport 2018 yi tey boo gisee ne ñu xam ne tey rapport yooyu noonu lépp lu ñuy wër tey si justice am na ko mais fan nga jàpp ne tey foofu la sooxee wala tey da nga jàpp ne suñu état yi tey ñoom ñoo échoué ci côté boobu ba application bi am jafe-jafe. waaw damay jàpp ne li gën a am solo ci wàllu euh, réforme mooy volonté politique maanaam dëggu bi nga xamante ne. moom la bëgg-bëggu coppite gi dëggu loolu dafa am solo lool moo tax amoon nañ fi ay waxtaan yu ñu amaloon ci 2018 wante dama jàpp ne 2018 euh, boo fi ñu toll nii suñu réew mi Sénégal euh, jànkonte na fi ak ay jafe-jafe yu tara tar yoo xam ne dem nañ ba yaakaar ne sax munoon na tax réew mi ndërmeelu kon tey suñu dellu waatee di waxtaan ci justice ñi ko seq ñëpp xam nañ ne Euh, jafe-jafe yi euh, tar na xam nañ ne war nañu wut ay saafara ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi justice Sénégal am te loolu yaakaar naa ne ñëpp d'accord nañ ci dégg nañ itamit euh, président de la République li mu wax yéeneem mooy ñu fexe bu justice bi doon justice boo xam ne dafay jëmmal bëgg-bëggu askan wi ci rafetal nekkinam wante itamit ci sàmmonte ak àq ak yelleefu doomu aadama yi Merci beaucoup. Merci.